asalaamaaleykum wa rahmatulah maa ngi nuyu mboolem ñuy seetaan ci dakaar Actu di ñaanal Dakar Actu yàlla may ko tawfiq ak yëkkatiku ak tamit seen objectif yëpp yàlla dimbal leen ban àgg ci ak képp kuy li fay liggéey yàlla jàmmal ko yàlla wéral ko. bés bii nii bés yi Layla Katmiya la Layla Katmiya bu ko waxee mooy guddi gi nga xam ne ci la Cheikh Cheikh Mouhamed Tidiane radiyallahu anhu Chérif ak eeg ci maqaama bi ñuy wax. alkatmiyatu katmiya mooy mu ngi jóge ko ci katama guy firi nëbbu na maanaam luñ nëbbu maqaama boobu mooy maqaamaam bi gën a màgg ci maqaama yi ndax cheikh wax na ne yontu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa feeñu na ma ne ma yow yaay xutbul maktuum mu ne ci lu dul nelaw la ma feeñu ñu laaj ko lan mooy maktuum mu ne mooy koo xam ne maqaama boo xam ne yàlla nëbbu ko yonent yëpp yo nëbbu ko malaaka yi nëbbu ko mbindee ku dul yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam euh, maqaama bu bu rëy la Cheikh Tidiane cëram bi cëram bu rëy bi mu am ci wilaya ay taalibeem tamit yàlla éege leen foofu ñu ngi ko amee ci barke Mawlana Cheikh Ahmad Tidiane yi te doole ji moom mooy dégg nga doole katmiyatu gi mooy maqaam boobu yàlla jagleel ko moo tax nag muy bés boo xam ne bés sant yàlla la suñu waajur Cheikh Hassan Deme radiyallahu anhu bokk ci ñi nga xam ne man neen wax na moo ko dekkalaat moo ko feeñelaat naam tijaani dina am na ñu ko daan def man naa am ñii dañ ko daan def guddik ñaan waaye génnee ko defal ko tànt ba léegi tamit di ci bernde waaye profité ci nag di ci waxtaanee ca guddigal lépp dix heures la daan tàmbale presque ba julli fajar ba pare di ci waxtaanee soley Cheikh Tidiane ak tariqa bi loolu xamuñ koo xam ne jiitu na ko ci. Cheikh Tidiane boo ko jàngee ci lu dul farfarloo daf daan wax ne lépp loo xam ne sax na ne yonent bi def na ko man dinaa ko def waaw dundam bi lépp dégg nga de la dundam bi lépp dégg jikko yu kawe la du daan lekk lu may dañuy oo mbooloo mi ñuy ñëw dégg de lekk si. nekkoon na koo xam ne tamit këram dañ faraan ak lu mu bëri bëri nit daf faraan bàyyi ndab loo xam ne ay ndab yoo xam ne pour gan la bu ñu demee ba guddi am na gan ñëwut ñu soo koo ñu soo koo joxe euh, lu jege quarante kër yoo xam ne moom moo leen amee woon ci Fass di leen jox dépasse moom moo leen Cheikh Tidiane yooyu yëpp ay jikko la yoo xam ne jikko yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ndax yonent bi ahlu suffa moo toon leen juróom-ñaar téeméer ñëpp ci moom leen daan lekk see ay ñu ay temps mu tasaare leen ci kër dégg nga da saxaaba yi loolu Cheikh Tidiane da ko doon appliqué xarfan bi xarfin ku mënoon a toléré la tey ki ñi xam ne man maay def waxtaan wi ci guddi incha allah Mouhamed Seydou Mouhamed Damraoui ci xalifaam yu mag yi la bokk ci ñi ko njëkkoon a topp kooku dafa teel a fës fi mu dëkkoon foofu ci ay numaat ndax da daan feeñal ay karaama ay ñi ñi ñi ñi di jaaxle taw bu jotaan sax nga xam ne toolam tooyut dafay yebal taw bi na ko demal taw sama tool te ci saa si lay am waaw jabaram mu amoon jabar joo xam ne dafa xaw a bëgg àddina daan xaar ba loo xam ne benn fruit boo xam ne manqué na wala lem amut mu ko damaa bëgg lem mu ne ko yow lem amut waxtu wi nii wala firu bi amut mu ne ko sa sëriñ am na ko Cheikh Tidiane mu ne ko waa demal ci mbedd ci buntu kër bu demee rek fekk ko fa moo muy gën daan gën di tiitaru naan sama jëkkër mooy nangam sama jëkkër li man seen jëkkër yi mënu ko jigéen ñi commencé di ko xas ak seen jëkkër yi ba waa dëkk ba bañ ko dégg nga fiiree ko sëriñ sa fiiree ko ñu kompaloo ko rey ko pour wan leen la Cheikh Tidiane baaxam te kooku sori woon la ci Cheikh Tidiane moo doon intermédiaire digganteem ak yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ndax moom dina daan gis yonent bi ñaar fukki yoon ak ñeent ci bés jawaratul kamal bi ñuy jàng ci wazifa yonent bi moom la ko dicté mu ñëw indil ko Cheikh Tidiane xam nga kon cëram réew euh, rëy na lool waaye ko reyee ceer Cheikh Tidiane am na ci naqar waaye dëkk ba dafa am ñu jugoon ne dañuy dem pour rey ñi nga xam ne ñoo ko ñoo ko rey Cheikh Tidiane bind leen lettre tere leen ko waaye emu ci lool ne leen ku ko def dinaa la rëkki xam nga loolu te foofu la àgg foofu foofu foofu la foofu la yem yooyu yëpp nag ay dama koy nettali pour ne jikko yoo xam ne la euh, jikko tijaaniyatu goo xam ne dañ koo soxla surtout suñu jamono jii nii.